dooree rek ak événement yi nga xam ne dafay faral di am niki samedi nag euh, gala national bu woy taskatu xabaar yi mm. lañu doon amal fële ca King Fat Palace euh, ñu teewoon fa gis fa nag euh, la nga xam ne wala sax mbooleem la nga xam ne jot nañ leen gëj gis foofu le mm-hmm. teewlu nañ leen lañ fa jotoon nemmiku bokk na ci ay prix yi nga xam ne jot nañu ko jox ay reporter wala sax ñi nga xam ne ñoo nekk ci presse écrite bi mm-hmm. leneen nemmeeku fa it ay artistes yu ñëwoon teewee boobule bis ñoo gëjoon gis rek buñ demee fekk nañ leen fa am mm-hmm. yenn ci ñi nga xam xam ne ñoo ŋànk euh, kërub euh, ci tas euh, kërub xabaar yi yenn sax ci ñi nga ñu seetaan la ñu waa ñu dem <laughs> di la si la fii ci King événement bi nga xam ne convention des jeunes reporters ñoo koy amal sa taxawaay tey ci bis waaw jeunes reporters yi ñu liggéey ak CNRA liggéey ba am solo daanaka échéance électorale bu am comme bi ñëw rek la présidentielle dañuy ànd ak man bu toutes les régions du Sénégal pour sensibiliser les correspondants et journalistes qui sont dans les régions muy liggéey bu am solo nga xam ne région yi ak tàngaay bi ñu yendoog ñun fanaan ak ñun wax ak des centaines de journalistes et de reporters pendant plusieurs semaines muy la am solo moo tax ma ñëw tey pour njëkkeel leen far nag ñoom ñu njëkkeel ma maanaam def ma parrain bu prix télévision euh, koo xam ne kii nag daanaka liggéeyam yëpp toute sa carrière bu ko def en télévision boo ko sargalee sargal bi ñëw par les pairs dafay nekk lu neex ci xol loolu moo tax ma gën a ñëw surtout parrain waaye nag muy am loo xam ne dañu koy faral di dund ci terrain bi muy ay violence ak yu nu mel lan nga ci sànni. waaw euh, fu may commencé mooy euh, Walfadjri nag bu leen foog ne dama am ak yenn problème euh, parce que démb rek wala bëgg démb maa ngi woon ak sama rak Moustapha Diop ñu waxtaan lu yàgg-yàgg muy sama rak ni Cheikh ñas nekk sama doom. Euh, parfois nag ci liggéey bi am ay jubbanti yoo xam ne def daf ciy ànd te loolu day baaxal seen liggéey euh, li nga xam ne mooy violence ci écran euh, baaxul ci xale texte yi lañ ko fekk di ko appliqué boo defee trois jours kooku ñëwaat dangay def une semaine bu ñëwaatee nga jëm ci weer mbaa ñaari weer waaye nag xam naa ne duñ ci egg ndaxte euh, ba rek yow dëgg yàlla Cheikh sama doom la te Moustapha Diop sama rakk la te man du ma noppi di waxtaan wax naa la bëgg a démb rek maak Moustapha waxtaan nañu lu yàgg euh, donc man defe naa ne waxtaan boobu ma continuer te incha allah yaakaar naa ne li ñëpp di wax léeg-léeg seen plateau yi naan waaw du ñu bëgg jël licence bëgg yooyu <laughs> du benn dëgg et puis kenn yónni ma naan waaw waaw Macky Sall non Macky Sall yónni ma kenn yónni ma suñu liggéey la ñu bëgg a euh, sàmm suñu xale yi ndaxte la réguler mooy surtout xool les couches vulnérables waaye wax dëgg yàlla man euh, damay seetaan Oustaz Adi Niass damay seetaan émission yu bëri foofu maa ngi seetaan Petit xam naa la bu baax léeg-léeg ma dégg leen ngeen def liggéey bu baax la rek ma dégg leen nag ngeen xaw a xumba tàngal tuuti waaye nag gis nga eh, ñun duñu sanctionné ci liberté d'expression waaw li ci ëpp laal mooy comme ni nga gisee rek xeesal la ñuy bañ di ko def promotion promouvoir xeesal baaxul yaa ngi ñuy taaru ba dee te def la xeesal li ñuy bañ mooy eh, dëkkal ci bopp xale yi violence bu weex seen bopp loolu la ñuy bañ waaye leneen loo gis rek mën nañ ci waxtaan waxtaanee li ma xam rek dama la wax noonu mooy dëgg-dëgg Cheikh day sama doom il m'appelle tonton te Moustapha sama rakk la am na yoo xam ne nag CNRA fu mu jaar liggéey ci su la oowee waxtaan ak yow ah nga lànk dëgër fu mu jaar jubbanti pour ëllëg ngeen juboo loolu rek moo ci am. sa taxawaay tey ci onzième édition bu. yaakaar naa lu baax la euh, dafa baax journaliste bu ñu defee liggéey photographie techniciens yi ñu sargal leen loolu dafay créer benn situation bi xamante ne day tax ñoom ñu am euh, maanaam esprit d'émulation et de concurrence loo def tey ëllëg nga def ko gën euh, moo tax dafa baax ñu encourager nit ñi encourager liggéeykat yi pour ñu baax. station nemmeeku ci ay euh, journaliste muy dem euh, di di bëri. yaakaar nañu arrestation Walf Quotidien ko bu baax moom euh, sunu sunu papa tonton Babacar Diagne. Ah. général. <laughs> Aliou Sow. yow boo may yónneeti wax ma fi may dem ñi ma fay fekk. leer na ne li bopp si mi li ma ko yëkk fii yëpp ma jaay. Ah, boobu laa xam man. Fatima nga ne ko ndax ndax xàmmee nga ma. mu ne la xàmme naa la nga ne ko nag yaa ngi seetaan petit déj mu ne la maa ngi koy seetaan. mais finalement nga mujjee ak moom xelu xelu xale ñu jàpp. ay ñaaw na ah. vraiment doo assumé. mais dama koy nuyu rek ndax xam nga. Hmm? doo ko wax li nga ko waxoon. naar man dèjà sama nijaay la sax ndax sama yaay jaañ la sax. ko jàpp comprendre nga. mais nee na euh, ci ci liñ fi jot a wax rek moom euh, Babacar Diagne bu Sénégal xam ne na ne rek amul problème ak euh, Walfadjri waaye nag dafa ci toll foo xam ne bu ay sanction jotee daal mhm. daf koy def ndax nag liggéey bu ni mel laaj nañu ko it ba xam président Macky Sall xaritam na nag ndax nee nañu ko nee na ñun ñoo ne ko fii la ñu toog naan ko Macky Sall moo lay sant ngay dagg ak daggul <laughs> nee na moom daggul dagguluwul waaye day xool li yoon teg mu du ko def mais man dama koy nuyu bu baax ndax gàcce weesu non déedéet man kon léegi kon yow Aliou Sow du may jàdd c'est que ñoom ni ñu non c'est que yow da nga kon juboo nga nii nii non man jubóowuma de léegi moom xuloowul woon sax nag da doon kii rek da doon expliqué xale rek wax naa ko ko man man moom moom comprendre na ma kon ci diggante bi kay kon ci diggante bi waxtaan nañ daal non ma kon maag nga fi ko waaw waaw ñaari fan yi xam nga lu ne mën na mën na am mais daal euh, loolu laay kàddu yoo xam ne jot na ko yëkkati te it nag euh, ñaawlu euh, arrestation yi nga xam ne nag mi ngi am ci mbooleem journaliste yi nga xam ne fi mu ne nii caabi dañu féete ginnaaw mm. suñu xel day dem ci Pape Ndiaye demaat ci Mati Sarnia mm-hmm. ak ñeneen ñi nga xam ne nag ñu ngi ci contrôle judiciaire waaye nag leneen loo xam ne nag jot nañ ko fa nemmeeku sañse Bamba Kassé bi déedéet kay waroon koo jël gis dafa mel ni gis naa mu def benn verre nii. def na verre bu murite ah, dugg hmm. def ay dégagement am xam nga rek ay yëfam mais na fu ma seen daw xaw ma lu muy daw <laughs> loolu ma <laughs> voilà euh, mu nekk rek euh, bon li Babacar jaan wax euh, vos observations bu ko defee ñu jàll ci leneen. mu xaw yërëm tuuti parce que. dafa sedd. maa ngi gis Babacar Diagne un Babacar Diagne élégant léegi eh, dafa euh, sañse dégg dama leen ko fàttee wax dafa ah, sañse mais mais da ngay gis ni moo tax àdduna dafa doy waar voilà est-ce que di xool leen Babacar Diagne yaa vingt ans ci télé bi moo tax nit nit dafay jeex quoi nit nit dafay dafay jeex euh, te te yii yëpp bu ma koy xool ni sama xel day nekk si dee xala euh, Babacar Diagne élégant Babacar Diagne aujourd'hui màgg di màgget nii da ngay gis ni mi ngi mi ngi mi ngi gën di nekk mag booy xool son visage. bu baax la dana ko fi borom bi bàyyi yàlla yàlla na gudd fan. et mu gën di jubóog euh, euh, chaîne de télévision yi groupe groupe groupe communication yi. Mhm. ba balaa ñoo defati yenn yi ñu waxtaan ci bu baax a baax te bañ a jël ay décision de manière active. mu xool li fi prédécesseur am defoon ku ci mel ni Babacar Touré amoon ay jéego yu am solo buñ ko nee daggal euh, signalu diw sax balaa mu koo dagg. non da koy jaral bakkanam bi donc ay leçon la yoo xam ne wax na ci mën a jàng bu baax moom télé Babacar Diagne bu demee ba ni Walfadjri bi mooy meilleure télé donc euh, dañuy nangu nangu rek xam nga parfois mënul ñàkk mu kii tuuti voilà nii noonu bàyyi euh, def nañ rendre nañ hommage aussi euh, maam Less kamara ndax nag moom bokk na ci nga xam ne dafa ràññeeku loolu waaye nag leneen ci ay ci beneen extrait bi rek comme mm. waxtu bi daf ñu waaj a xooj ñu teewlu ko de bu ko defee ñu dellusiwaat Thank you. ngoog waxtu wi la ñuy bañ mu xoj ñu li fi la fa jotoon xew nag mënuñ koo yebbi ci euh, fukki minute bu ko defee mercredi dañ koy ñëw yaatalaat ko waaye nag leneen bokk nañ ci gën li gën a ràññeeku Papa Ndiaye Coppé daal dañu toog rek mu ne derees ci kaw nit ñi def ay dàllam yu nganda yoo xam ne ah bon <laughs> ñëw taxaw mais bon ak euh, jot bi fa ndax nee na moom dafa sawar di ñëw ci soirée waa ndax foofu ay euro lañuy ñuy maye mais saafara soirée saafara ndeer du fa dem Aliou Sow sànq yaay noonu wax lu am solo. mais euh, bu bu xew mi neex ba nga fàtte pas de danse Pathé Mbengue. waaw ak Assane ak ak <laughs> Lo. ah ak kan. Lo Lo ak Ndiakhate ñaw. Aliou ak Aji moom incha lii moom lu ñu war a archiver lay doon. ak aussi fecc na. Assane waaw Assane am fii te dafay trompé nit. Assane bi <laughs> dafay tromper nit bu xew mu neex ba ngeen fàtte ni kii Assane gay mii def vingt heures la fii ci kër gi mi ngoog moo nekk nii wóor li ba pare ah Pathé la le grand reporter boroom dox dox bi wala action conscience. xoolal kii Pathé moom affaire affaire Koffi Olomide la. Koffi <laughs> li ma ko xamal lii moo ci gën a ndaw. bu paree fecc yàgg yu xew yoo xam ne xoolal lii. dañuy nam aar bi système bi la ñuy namm. yéen seen dàll ay dàll bot di daw. topp peel peel mooy fecc boobu ñu yooyee peel. bu yàgg ngoog eh, kii daal la moom kii daal ganda ab tubaab la bu ñu toj fa dëm ko ci sama gars yi namaale xew nag ñuy génn mii <laughs> noonu Aliou Sow sànq wax nga la am solo nga ni femmes yi fa nekk dañoo lan mm, mm, mm. Hmm? non non nee bu fa <laughs> barki yàlla booy wax si kanamam waxal jàmm nee na mu jekka fa ne dañoo rafet dañoo ah. dégg jàmm baal baal naa la ko moom baal naa la ko baal naa la naa la baal naa la jégal jégal naa la ko Aliou Sow quoi xale yu ma naan est-ce jënd seen jekk ak xam kii dañ ko jënd parce que quand même bariwul ay xale yu taxaw quoi journaliste si bëgg dama gis bëgg journaliste yu taxaw baax yu mel ni yu mel ni Adji Sarr Adji Sarr yow yow liste bi loolu waaye waxal yow la. fi kon Salma euh, lal lii lañu fa jotoon taataan la ca des naka mënuñ ko yebbi tey bu ko defee bu mercredi incha mhm. dinañ ci ñëwaat gërëm Babacar bu baax nag baabakar juuf caméraman. Mhm. jàpp na ci ba mu dëgg xam na maa doy fa laay nekk jàdd fii ma nekk ci leneen. <laughs> moo tax gërëm ko bu baax gërëm euh, ñi nga xam ne nag euh, ñoo ñoom la fa fekk waaye nag am na ci ñu mën a jëw. Mhm. gis nga nabu koor bu deux ans. <laughs> Nabokor bu deux ans fay dafa toog teg la ay tànk di xool lu mu nekkali lay dem lay dem lay dem xooli ñoom uh, Fatou Abdou Ndiaye aussi di ko ziar ndax journaliste di leen ziar di leen euh, ziar bu baax di leen ñaanal mami sax non non mami ñëwul. ah d'accord waa 2A ñoom moom. macha allah suñuy nit nañ gis nañ ba coro nekkee si jafe-jafe mm. Pape mm. euh, ñoom ñëpp en Babacar Touré dañu mm. jël médaillon wu euh, nit ñooñu di ko def seen émission et puis dañu ànd ak ci jafe yooyu ba suñu borom def li gën li gën ah. mais il continue avec Pape Ndiaye voilà ñu ngi ci jàpp bu dëgër di ñaanal bu baax ñoom it yal na leen ci yàlla fay waaye nag nabu bu yóbbu mu góorgóorlu jéem a changé rek xool <laughs> mbir bi naka lay demee merci beaucoup. gërëm jëw jëwkat la. ah moom daal sañse na ba jéeg toog teg la tànkam su ma ko xoolee mu xool ma moom leer na ma ne man xam naa li ma koy xoolee moom xam na ne xam na. <laughs> kon kon yéen ñaar yam kon. Eh, man di <laughs> en tout cas alors di la jaajëfal liggéey bi am na solo. c'est pas du tout nga def li nga def macha allah liggéey bi am na solo. sponsor officiel Papa Cheikh sponsorisé la macha allah Babacar Diouf aussi liggéey bi am na solo. 500000 la ko jox waaw. loolu la ko jox te andiwul wecc moo tax mu dafa am baax ma jox kii ngi noonu di la jaajëfal mais encore une <laughs> fois happy birthday à à Amina Bodion mi nga xamante ni macha allah kenn la si ñun di suñu yaay di suñu tante baax ah, bëgg petit déj bëgg Walfadjri mais rawatina ah, petit déj macha allah di ñu yónnee ay ay ay mais tey euh, du de Amina dugub la génn ak ñun macha allah non bañ dugub bi nag dama bëgg Sénégal yi xam ni Amina Bodion moo ko yónnee joyeux anniversaire waaye wóorul wóorul parce que boo ko l diire ci Sonko. da ngay Sonko da ngay Sonko c'est pas ñu ci beñe dugub bi. ay ndax nag jaaykatu beñe yaa ngi gis seen bopp ci beneen c'est vraiment important lii tey ñoom moo ñu moo ñu sponsorisé ci waa Sandra ñu leen di xam naa ñu ngi suivre nekk ni daa mel ni lii nag dañ koy tere ci réew mi bañ a dugub mais bon yàlla baax na ñuy jaajëfal bu baax a baax téléspectateurs yi waaye di jaajëfal aussi ami internet ci nga xamante euh, ñu ngi suivre euh, émission bi lee depuis ce matin tata Ajaratu Penda Diallo Gueye la force tranquille njaboot gi la on t'aime très très ma yëngal ko hors euh, antenne Isaaxa Diagne bëgg nañ la ke euh, Babacar Lo Babacar Diouf baatoo Torodo ak Louis Faye on vous aime très très fort ñu lekk suñu beñi dugub journée bi daal di neex très très bonne journée ba si kanam